asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk turam ak santa di jos seen ziar lu baree bari amante théâtre bi moom macha allah ma ci loo xam ne daal jar na commentaire yi loo gis rek yeta la ndax ku toogul doon ci seen gérer ko fi ne nii yaa ngi koy gérer ndax théâtre bi lu bari bari yaa koy maytu yaa ngi xool maanaam xam nga biram ak jodika nim fa demee rek ndax mu ngi nii tey topp toogul woon jëkkëram yaa ma gën a xam ba fi ne ni dem na xaritam géré ko lu dafa bari ci Sénégal bari na Sénégal trop trop moo tax jigéen ñi say nañ rafetaay seen toogaay góor ñi tamit am yërmande ci jigéen ndax xarit amul di àndandoo mu ëpp ci Sénégal ki nga jàppee sa xarit chaque jour moo lay war théâtre bi moom gisuma daanaka daal lu ci nit ñi commentaire daal di wax Marème moom sama idole la moom maa wax lii marème moom dama neex trop neex na ma daal théâtre bi daal amul benn fët daal gisuma ko ci daal bu dee dama wax dafa am gàkk-gàkk maa ngi jégalul maa ngi lool waaye théâtre bi moom macha allah fi ngeen teg seen tànk noonu la bu leen ko mës a teggi waxu nit ñi moom mi ngi noonu ndax da gis tey ñoom neex gis tey ñoom naqari ndax Sénégal moom bëgguñu sax mu dem ci kanam buñ soñoon day arrière ndax dëkk jàmbur moo leen gën a seen dëkk tey bu doon feneen lañ koy defee nii dañuy nekk duñ ko mës a aayal théâtre bi amul lu bon di ngay bañ a toog say parents maanaam bañ ko seetaan amut amut lu bon amut ci gisuma ko ci maa ngi jéggalu nag lu baree bari bu dee dafa am gàkk-gàkk maa ngi jéggalu <laughs> asalaamaaleykum sama gaay yi def yéen ci jàmm ah tamit nag dama bëgg a ci série maîtresse d'un homme marié ah ñoom ñoom Moustapha moom seen couple macha ñoom ñu koy doxalee moom c'est normal waaye d'une part Marème ak jëkkër ji seen dim demeen bi ëpp na départ bi ñu doon wax ëpp na ah nit ñi dañ koy seetaan tamit dañ rappelé wu xale yi les enfants sont là quand même Lu Xew TV nuy naa leen ah, di kontaan ci série bi daw maîtresse neex na trop am sens man na ma ko bëgg trop duma ko tardé mm, Marème moom mm, li muy def neex na rôle bi muy joué neex na trop mais eh, kii bi fenn rek laa ko xaw a mere mais bi mu demee bi mu demee luñ demeel mook seex fi mu koy fobee noonu di yéega di ko yéegal ci kaw lal bi foofu moom mooy loolu dafa sexe trop te eh, foofu daal moom xaw naa kii mais yi ci des yëpp moom neex na ma li muy wax li muy rolam am yëpp daal neex na ma moom na lañ ko jox rol rek rôle bi ñu ko jox rek lay joué ndax jéeg bi sëy tamit dangaa war a xeresu tamit foofu moom mooy loolu ah, kanta laal la laal la jeeg la ah wax dëgg yàlla affaire bi daf koo bett na dafa géré woon sëyam ba mat sëkk looloo tax affaire yi bett ko mais fi doon mi ngi koy gérer ndax tey aw bi jox wujjam kado yombul de muy dem mu jox kado baax ne ko joxaale ma ko mm, foofu kontaan naa ci te tamit yombul mën nañ koo gis ku koy gérer trop mais du la jox kado ne la yóbbaale ma sama wujj moom foofu moom nit ñee kii rek mais nag wax dëgg yàlla laal la ma am problème mais quant à euh, dëkk bi tamit loolu war naa mën a nekk waaw na tey eh, Marème bëgg na seex bëgg naa sëy eh, la tamit bëgg na seex te jeeg la tamit war naa mën a uuf rakkam ñu bokk kër gi gérer toppatoo seen jëkkër loolu daa war naa mën a nekk allo salaamaaleykum waa Lu Xew TV ñu ngi nuyu ñëpp di suñu mbokk yi ñi bokk di déglu ku ne di wax sa xalaat ci série bi wala bokk ci théâtre bi waaye man nag benn côté damay mer ndax xam nga li tax may mer man nit ñi dañoo bëgg a jël seen seen xol jox ko xol defal ko lalla te loolu du noonu ak mbir bu ñëwee ku ci ne da ngay xool fam lay fekk nit ku réactionné ci dara rek fam la fekk moo tax nga nam nam dikkee ci yow a tax nga réactionné te man na li ma jaaxal ñi fi dugg ñëpp joxe seen seen xalaat ci lalla ni mu def du nii du nii du nii dégg gu fi kenn ku ne nag man ba ma sama jëkkër defee nii. nii laa doxale wala naax loolu moom moo ci gën a jaaxal bésu laal la ngeen gis donc man duma d'accord ci ñii dal laal la laal ay raison am la ne xëy na nag li ñuy wax lu olof di wax lu ëpp tuuru dëgg la lu waaye nit ki bu dara xewee rek nu mu ci réaction rek naa leen nañ nam ko dikkee la parce que xëy na Cheikh am na noo xamante ne xëy na bu ko doxale woon bu ko doxale woon ak laal la laal la lii yëpp mën na ko cee bañ a fekk man toor bi yëpp rek dama koy delloowaat ci góor ñi du mën a Cheikh kese sax ndax Cheikh sax moom macha allah parce que moom responsable na yor na këram def na lépp loo xamante ne daal charia may na ko pour pour mu am ñaari jabar mu ngeeg moom ndax bu dee possibilité bi gis nañ ko ci série bi ni mu ko ci wanee ndax mën na ko wax dëgg yàlla ndax Lalla manqué wul dara autant que Lalla it bàyyiwul boppam xaar rek Cheikh defal ko dara xam nga li ma la wax donc xam nga des fois polygamie yi boo gisee problème yi ciy bëri ci takkum ñaareel bi coow léegi lu bëri foofu la waaye itam à part loolu yëpp bu poussé yit bu matee dafa am loo xamante ne entre ñaan yi sëy la parce que nit ki da ngay da ngay teg foo xamante ne am na loo xam boo ko defee rek même bu lépp matoon ak moom sax da koy metti bu lépp matee sax da koy metti te xam nga macha allah bu ñu xoolee li ñu sëri bi war laala cheikh de seetlu ko dara ndax lépp lu boo jëkkër war a defal jabaram seexam ko koy defal macha allah ñu di ko gis autant que ñun ñi nga xam dañuy seetaan sax amuñu loolu suñu jëkkër mënuñu loolu waaye dañ ciy bëgg. parce que jigéen lañ koy defal te ñun ñëpp ay jigéen lañ dégg nga waaye man daal d'accordu daal ci ñi dal laal la man daal bëgg naa daal ñi wax ñëpp di dal ci moom nañu xalaat ni ñoom bu ñu nekkoon position laal la ñoom nan la ñuy réactionné man gis naa ci ñoo xamante ni ni ñuy waxee bu doon position laal la ñu nekk laal laa leen di tane donc ni da ngay xalaat bul xool rek na film la sa xalaat ngay joxe waaye tamit dafa am loo xamante ne nit ki boo ko dundu loo ko dalul ci sa kaw yow mënoo lu ñu ne la metti na rek mënoo koo yëkk waa ngeen baal ma ci kaddu yi nag bu dee xaw naa dëgër ñu ngi jéggaloo <laughs> suñu xalaat rek la joxe jërë ngeen jëf ba beneen épisode ak jàmm ak maa ngi leen di siyaar di leen bëggee di liggéey quoi li ngeen di def neex na lool lool am na njëriñ macha allah film yi ngeen dawal yëpp a neex rawatina nag maîtresse d'un homme marié série bi moom dafa nekk sama série quoi parce que. chaque jour su ma koy seetaan rek damay sentir sama boobu ci dund bi et puis dama ciy gis lu neex loo xamante ni daal xam naa ni bu mu jeex daal na nekk série buy continuer série bi neex na ma lool bilaay bu mu gëj a tamit ngeen koy teel a dugal neex na lool lool macha allah waaw su paree foofu nag di wax ci série bi série moom yaar naa ni li ma ci gis lépp ma neex bilaay surtout Birame man moom Birame moom mooy sama acteur moo ma Marème Dial ñoom moom ñoom moom dama leen dañ ma neex ci série bi bilaay. lenn rek laa ci laa ci xaw a ñaawlu tuuti mooy suma ma sonoon mooy séquence boobu ñuy def ci diggante borom bu ne bu amee benn problème rek dem dem dem kii dem dem ci baar yi noonu di naan xam nga yooyu noonu di naan naan boobu muy naan daal suma ma ñu koy siy dindi bañ ko ciy wane parce que nit ñi moom xam nga rek mën na yaakaar ni loolu day day la dara ñu koy topp di ko roy fekk du demeewul noonu amaana loolu day yàq waaw waaw mbareem tamit moo ak seex tamit seen côté. parfois seen li ñuy seen rôle seen rôle boobu ñu joué neex na lool tey jàngale mais nag mosoon tamit yenn wax yu vulgaire yi Marème di wax mu ngi ciy invité quoi parce que ñiy seetaan ñoo tax parce que parfois dangay seetaan toog say waajur doo mën a dégg loolu et tamit moom ñoom moom ni ñuy def kii na quoi mais dañuy yeete mais li ñuy def noonu xaw na ëpp benn côté ñoom ñaar quoi moog Cheikh moog Cheikh Diagne mais di wax Jalika tamit xam nga. <laughs> Jalika <laughs> Jalika wàññil kii bi tuuti waaye Jalika yi tamit <laughs> neex ma lool waaye da nga da nga bëri ñàngal <laughs> ak kii ak ak ak rakk neex na ma lool lool sérieux bilaay jaal tamit kii joor tamit ma naan ko no moytu biroom biroom bànni la de waaw maa ngi rafetlu affaire bi nag bilaay neex na lool lool macha allah. salaamaaleykum Xew TV maa leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara. te di bëgg nag ci série bi maîtresse d'un série la boo xamante ne moom jël na jamono rek këppoo ko ne ñoo ko war a doxal série la boo xamante ne lu xew ci jamono ci boppam lépp li ci liñ ciy dund rawatina jigéen ñi li ñuy dund ñii di ko wax ñii téye ko ci seen xol yi loolu la ñuy moo nekk lu leer naññ lu am benn jamono nag bëggoon naa dugg partage ak yéen mais xat-xat yeeg yi tey moom ma mayatul woon pour may dugg ma xamoon que ne tamit rol boobu am ngeen ci ay ñi leen ci jox ay rôle yu bari mais rôle u rakk yi moom rôle la boo xamante ne pour ma wax ci sax lu difficile la rôle bu am la soit que nag mu am nga téye ko sa biir xol muy genre viol soit que nag yaa xam noo koy dundee mais am na ñu mu yàq seen àdduna ba faw donc ñu leen ci sant ndax lan dangeen ko teg ba pare teg kaa bi rek nara romb ak nu mu ci xeex ba nar cee génn peut ñi ko dund waa euh, na dinañ ci jaar noonu ba xeex ci tamit ah xam naa du yomb nag comme série bi mais ñu jéem ko en tout cas jàngale ngeen foofu yoon biram nag moom man ci biram laay wax biram moom mooy sama fansi ci série bi man moom biram ah biram moom lu muy joué moom amul fenn biram daal biram moom bu ñëwee rek kooku moom mooy kañ bi ci kii bi loo stress stress ci rakki benn jamono moom soo ñëwee ci biram ah, foofu moom da ngay ree bay nelaw donc seen bi daal moo ngi dox bu baax quant ak biram nag ak jox foofu luñ fiy jàngale ah, am na solo tamit ndax moo ngi jàngale ne jigéen boo dundee lu metti waroo am xaritu góor wala bu mënta ñàkk sooy am xaritu góor na nekk boo xamante ne lu leen ci fekk ci diggante bi du doon lu ñaaw loolu laa gis ne foofu la root bi loolu lay jàngale ndax dégg ngeen bu muy naan man sama àddina dafa metti moo tax duma xalaat lu ñëw damay def akama koo gëm akama koo gëm donc foofu man dama ne jàngat bu ma ci am mooy moo ngi wane ni boo dundee lu metti soit que sax nga ñàkk a dund lu metti mais daal jigéen booy am xarit bu góor nga nekk koo xamante ne danga koo xool bu baax boo xamante ne kii après yërmande to comme olof yaa dafa ne yërmande fu mu nekk ci diggante góor ak jigéen bëggeel dugg donc kuy am xarit bu góor daal nga xool ko bu baax ba xam ne lépp luy dugg seen diggante du doon lu ñaaw biram nag moom dinaa ne nobul euh, kii jox li ko ci bëgg a dugal mooy dafa bëgg a venger wu du ko ci dugal sax laay wax dafa bëgg a venger wu ndax benn jamono moo ngi doon naan euh, soxnaam ci tur ba fàtte naa ko sax bu mu ko seeti géej ji bureau ba pour ñu waxtaan ci mbiru Amina moo ngi koy euh, xamal mooy ñaareelu seex bi xaritam bi lu tax mu nëbb ko mu ne ko yow seen xarit yi rek ñoo leen di tromper. donc comme gis na ne xaritu Jalika moo nekk waa Jalika moo nekk ak papay Jalika gisaat ne xaritu Jalika moo nekk ci Cheikh Boy jaxase si yam kon moom tamit il faut mu jëlaat ci xaritu Jalika bu mu xam ne que xaritam yi rek moo boobu mu wax laa gis ne moom la gën a bëgg a dëggal foofu mais du mbëggeel mais en tout moom fi mu nekk dafa bëgg ba jeex tàkk to xam nga jigéen moom bu bëggee rek day xaw a cool rôle bi daal seen film bi daal rafet en tout cas moo ngi daw loo xamante ne daal nit ñaa koy si seen biir néeg yi ci seen biir kër yi di ko dund mu metti lool yéen yéen a ngi ciy jàppale bu baax sénégalais yi merci wasalaam. asalaamaaleykum na ngeen def maa ngi leen nuyu ku si nekk sa sant na ngeen def nag ma neex na trop neex na trop neex na trop. man daa man li nekkoon sama xalaat daa mooy ah, kii Marème Marème daal moom wax dëgg yàlla wax ji moom ku ko mënoon a rafetal moom mu rafet trop trop trop wax dëgg yàlla rafetee daal moom na xale ñi koy seetaan moo tax waxa moom daa xaw num demee moom wax dëgg yàlla. ñu koy nuyu nag kii bi nag moom film bi moom wax dëgg yàlla neex na série bi moom wax dëgg yàlla neex na trop trop trop xam naa la tamit ma koy wax rek jigéen moom mu demee ba nga xamante ne rek moom mi ñu doon def lu rafet kay no si continuer rek no si continuer na ko bañ a yàqal benn viam na ko continuer rek. salaamaaleykum. waa euh, maîtresse d'un homme marié man la madame jàll dama leen suivre boobu ba tey seen série yi benn rëccu ma ci sincèrement dama am sama benn opinion ndaw rek ma ci bëgg euh, wax ngeen baal ma nag sincèrement seen série bi neex na neex na am na yéete am na loo xamante ne moom la ñuy dund ñun sénégalais yi mu ngi ci biir yaa ngi may dégg ndax ci li ñuy wax def yëpp ci série bi ñu sàccewuñu ko benn dëkk benn dëkku africain bu ñu wër sincèrement liñ ciy def yëpp suñ culture la liñ ciy def yëpp ñun fii Sénégal dañ koy def dañ koy wax sincèrement naturel na neex na ngeen baal ma nag yenn Sénégalais dama leen di dégg déglu seeni commentaire sincèrement te ngeen baal ma nag yaa ngi may dégg am na loo xamante ne ñun fii Sénégal dañuy seetaan novelas c'est di n'importe quoi di nga gis loo xamante ne yow sa yaay jël sa commande changé dem ci beneen chaîne pourquoi pas ñu bañ a def noonu parce que man souvent may toog samay doom damay seetaan damay gis suuf noonu damay changé mais sama télé ci novelas yi série yi série mi ci yéen laa yor mais muy dégg mooy nag ñu waxante dëgg nañ bàyyi daal ñu seetaan ndax ñu innové yaa ngi dégg. sincèrement man dama daan seetaan série yi ñagi daaw ma ci raté benn mais sincèrement suñu série sénégalais yi ñuy joué léegi xaw a yaatal yi fi tuuti moo tax léegi léeg mu leen ne ma gëjee seetaan sax novelas kii wu novelas da ngeen naan ma dégg tout le temps maa ngi ci youtube bi lu daw ci théâtre ba seetaan ko sincèrement surtout nag maîtresse d'un homme marié chapeau à vous Marème Ndiaye on derrière toi toutes les sénégalaises allez jéggalu bu baax tamit dañoo ne ku nekk sa xalaat rek xam nga wax si li nga xam daal waaw di waxaat tamit si euh, franchement épisode 34 euh, euh, bi mujjee passé man moom depuis commencement bi maa koy suivre série bu neex la macha allah et di leen encourager aussi franchement neex na torop franchement di wax tamit que hmm, franchement laal la macha allah chapeau jigéen ju mot jigéen la. c'est juste que dafa war a redoubler d'effort rek xam nga euh, métti na lool ni ko Cheikh defee ñaaw na lool xam nga di ko tromper di génn pare mel ni ku ragal Cheikh mel ni ku ragal lan la xam nga ma si gën a métti rek indi di ndaw si di indi mareem si këram loolu moom ma si métti mais le passé passé elle a bien géré nangu na ni léegi ay jullit nañu franchement góor am na droit am ñeenti jabar gis nga loolu jigéen bu ko defee si boppam rek doo sonn. franchement doo sonn boo dee aaw tamit boo dee ñaareel ñetteel ba ñeenteel doo sonn góor moom nee nañ dañ ko mooñaale infidèle donc c'est ça quoi di wax tamit ci biram ak joor franchement ñoom ñaar ñëpp cinquante cinquante ñoom ñaar ñëpp a franchement sama xalaat parce que amaana biram loolu mu fiy du góor bu du loolu góor bu baax ok ça on mais joor jigéen la dafa war a sàmm digganteem ak xaritam lu mu bon bon baax tamit balan baloo sa bopp tamit sa diggante ak sa xarit war nañ ko xoolaat bu baax aussi franchement war nañ ko xoolaat bu baax euh, euh, j'espère que aussi j'ai pas trompé le parce que ma gis numéro bi affiché wu rek ma ne peut-être xanaa fii nañuy participer waaw loolu daal lu ma siy wax tamit épisode yi neex na macha allah chapeau quoi ñu ngi koy wax naan j'ai hâte de voir la suite quoi. asalaamaaleykum wàllu xew eh, ci eh, maa ngi leen di leen ziar yi ñëpp bon juste man dama gis numéro bi léegi rek ma ne bon di déglu wax yi commentaire genre ma ne pourquoi pas ma ma participer ma participer sama xalaat man tamit parce que waaw Sénégal nañu nekk te ñu koy waxee réewu teranga la sutura man euh, damay compatir si peut-être lii li ñëpp wax si moitié bi juste rek dañu war a xam ne euh, duma acteur ah duma actrice di moins mais juste rek damay xool nit ku nekk na naan ah bu doon man defe naa lii seen rôle la noonu lañ ko mën a jouer pour wane réalité li am ku nekk sa biir kër je sais pas nag xawma mais c'est juste euh, benn ku nekk sa xalaat rek waa mais je pense que euh, tey dañuy wone lépp li xew ci biir kër gi xew ci mbedd bi li xew ci biir kër gi liy xew ci biir néeg yi népp nu ñuy def maanaam kon waru am limite parce que dañuy jàngale est-ce que tu vois en plus que man dama jàpp ni euh, dañoo war a marqué ci série yi buy commencé comme ñu def comme dans les films ñu def ah moins de dix ans wala moins de douze ans pour au moins ñu bàyyi bay xale yi tamit di seetaan parce que franchement du série xale du Mickey du dessin animé faut se dire la vérité voilà en sama xalaat quoi waaw. ah asalaamaaleykum ay yéen a ngi jàmm maa ngi leen di nuyu yéen waa série Maîtresse leen muy yéen ñëpp leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram film bi nag moom neex na torop torop macha allah. mais Lalla ni def keroog préparé jëkkëram mu ànd ak seetam dem loolu moom neex na ma trop Lalla loolu su ko continué woon rek dina baax mais comme bi ko Cheikh waxee ni ko Marème day sëy si ni mu def rek laa xam ne du ko continué lu baax loolu mu def du ko continué parce que bëgg xëy na bëgg na ko def mais xolam moo ko nungul xolu Lalla moo nungul moo nungul Marème daal moo mënta supporter Marème te normalement war na ko mën a supporter parce que jigéen la muy jigéen. am na nu muy demee bu ko supporté wul seen kër day neex waaye xam naa ne laal la moom du ko def moom mais mareem nag moom man neex na ma mais leen rek laa ko meree moom affaire yi muy wax ak yooyu daal moom dafa ëpp trop trop trop trop parce que am na yoo xam daal dafa rafetul ndax loo xam ne day joxe njariñ moom ñëpp a koy seetaan te film bi ñëpp a koy seetaan léegi kilifa yi am na wax yoo xam danga koy xaw a teggi tuuti daal bu ko defoon rek de moom moom dina baax moom ndax suñu wax dëgg yàlla nit ñi kontaan nañ ci macha allah ku si nekk rek weer nga xam ne da nga ciy gis sa bopp neex na trop ñëpp dañ koy seetaan kon nag war na suturaal ay kàddu daal Marème daal moom moom mi ngi koy bëgg a yàq daal wax dëgg yàlla mi ngi koy bëgg a yàq moom waaye jërë ñu jëpp lu loolu nag moom lépp normal na maa ngi leen sant leen gërëm di ñaan yàlla suñu boroom yàlla defal leen ci ndam ci li ngeen ci bëgg ngeen dem tam ba léegi nit ñi duñ am dara luñ ci sikkal wala dara ndax lii tam film la rek mais il faut que nit ñi comprendre waaye waxe ñi daal mooy lool moom waaw jërë ngeen jëf nekk leen ci jàmm yal na yàlla suñ borom dolli seen jàmm. salaamaaleykum maaleykum salaam. ay siyaar wér wér wér wér jamono yi si ginnaaw maa duggoon doon am ay kàddu yu mu doon sànni quoi ci maîtresse waaw seen benn fan su dama koy suivre nag bu baax comme ni ma la ko waxee woon rek waaw kon dañ ne wax sa xalaat rek moo tax ñu ubbi tey bi ko waaw wax sa xalaat la rek parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ te doomu réew mi lañ fii moom lu baax lu nekk rek si ñun la quoi waaw kon nañ rafetal yaakaar na que ni épisode bii nii. maa ko doon suivre quoi mais gars yi seen lim de miel bi moom xam rek mënoon naa demee neen daal moom nañ ko xool neen nañ ko defee waaw parce que dañ jàpp ne maîtresse moom léegi dafa yaatu quoi ñëpp koy seetaan kilifa yi sax dañuy toog di suivre xam nga série bi quoi kon yaakaar naa lépp luñ ci def rek dafa yiw tuuti. ñu ormal kilifa yi waa groupe maîtresse ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur sa sant di leen jox seen wàccuwaay waaw man sama critique euh, série bi passé mooy que Marème Lalla bi mu yabalee Cheikh valisam ni demal demal nga fanaani demal nga def sa ligne de nga xool li nga bëgg jour yi nga bëgg nga nekk fa mais da ko yónnee laala da ko jox ay euh, peignoir pour mu utiliser ko mais ak lu mu mën a doon ñaaw njoxtu boobu moom man de suma ma sañoon du si ñaaw njoxtu parce que moom dem na ba xam ni lii nekk na te mënatu ko dindi kon xëy na moom dafa yeddaat boppam mu xalaat ne lu nekk mën na am ëllëg moo tax mais xam naa ni tamit ut jàmm moo tax mu def loolu waaw Marème moom sopp naa ko lool mais ay termam moo xaw a vulgaire pour mu éviter ko parce que lii yeete la yeete la foo toll doomu aadama yi dañ lay seetaan xama te tamit suma ma sañoon ay affaire wujj yi ñu jëm ko évité éviter éviter lu baree bare parce que des fois dafa da ngay laal da ngay laal jigéen da ngay laal wujj yi danga leen di laal naa série bi nag moom neex na neex na rafet na macha allah neex na trop trop trop te ñu ngi yeete beneen bi joor moom joor lu mu def xamu ko sax yow nan ngay nekkee sa copine. nekk ak sa copine ça fait longtemps ngeen di nekk yee ñaar mu xamal ko lu nekk ba pare jëkkëram ñëw bëgg génn ak moom loolu mënul nekk joor na xool lu muy def li mu def euh, ëllëgësi bi dañ ko indil gàcce gu rëy rëy rëy te gis na bébé Amina xam na lépp te dina ko wax yaayam loolu mooy wane ni léegi xarit amatul man da xarit du ma xajal sama jëkkër jamais jamais jamais waa ñu ngi leen di sant di leen gërëm série bi nag neex na trop. waaw ci jàmm baax ah man gis lu ma jaaxal loo xamante si ne rafetul ci gis-gis rafetul ci deftar muy maîtresse d'un homme marié li ñuy def nii baaxul parce que àdduna bi yëpp ñoo koy seetaan surtout ay jeunes doomu ñoo koy seetaan ay xale yu ndaw. rafetlu rafetlu mu ko daal ñu teg ko ci télé bi li ñuy def dafa virgule dara baaxu ci nit mën ngaa jouer théâtre gis nañ fi wiiri wiiri gis nañ fi toogafe avec gis nañ fi jury bu nekk te mii mi suñu koo doxalee kon nañuy def lu rafet def lu baax lu rafet lu ko nit mën ngaa jouer mu neex ñëpp xool kontaan mais que pas ngay def naka su dul li rafetul ci seen dem rafetul ci ñun dafay gis